sur euh, l'affaire de l'argent sale et truc c'est vrai que chaque matin ñu jox ñu scoop que comme quoi on a la les forces de défense et de sécurité def nañ exploit rattrapé nañ mais il faut ñu xalaat comment nous devons faire pour éradiquer ça parce que comme ni ko doyen waxee chaque fois ñuy arrêté nit mais jàppal ni soo arrêté kenn koo xamante ne dugal na cinq milliards de fay de faux am na am na koo xamante ne rawale na 10 millions ba 100 millions. wala soo arrêté benn nit koo xamante ne day 90 tonnes de cocaïne am na koo xamante ne dugal na leneen. maintenant mm. comment nous devons faire pour que Sénégal bañ a nekkati plaque tournante de la et de du blanchiment de capitaux. Mm-hmm. donc loolu euh, le nouveau pouvoir am na ci liggéey bu am solo boo xamante ni war na ko mën a def pour que Sénégal situation yi nga xam day dund par rapport au blanchiment de capitaux et de l'argent sale ñu mun ci ñu mun ko éradiquer définitivement nga xam ne du impacter la société sénégalaise et notre économie